ak fu ñu mën di nekk mel na ñëwaat nañ ak yéen ci ab jotaayu tënk ab dars boo xam ne dañ ko fas yéene seq ak yéen mu jëm ci waajtaayu guddi gu màggee yi nga xam ne mën nañu dëgmal ñu war ko ànd ak kenn ci koo xam ne nekkatul ku ñuy xamle ci jotaay yu mel nii suñu waajur euh, Cheikh Hafiyatu Ahmad Ñang war a ci ànd ak ñun war ñëw ci tomb boo xam ne ñu ko tënk ci lan mooy cosaanu gàmmu ak naka la si naka la ko Cheikhul Xadim radiyallahu anhu daan dundale kon xam naa du guddal dañuy dalal suñu gan gu tedd gi mu tàmbale ñu ci waxtaan wi ci ab tënk bu gàtt ci ab yóbbale bu ñu mën a yóbbaloo ci wàccaayu guddi gu mag googu kon sëriñ bismillah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayyidina mawlana muhammadin alhaadi alamin wa ala alihi wa ashaabihi altahirin wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin bokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu fu ngeen man di nekk leen ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru gàmmu eh, ni ko sëriñ Abdul Mutalib waxee di ñaan yàlla li làmboo lépp ci ay ngëneel ki barke sunu boroom dajale nag moom rawat na yi doxañu ci biir guddi gu tedd gi guddi gàmmo gi euh, gàmmo cosaanam mooy màggal gane àdduna ak yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne bisu feet la feet mooy bis boo xam ne aw xeet dañ ko jàpp di ci màgg di ci fàttaliku di bëgg ak euh, fàttaliku ak sant ci xew-xew bu mag a mag boo xam ne dafa marke seen histoire marke seen dund xam na ni ci lislaam am na ñaari feeti cosaan muy feetu korite ak feetu tabaski loolu di loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko digaloon jullit yi euh, ci nekkam ñu ànd di ko def muy lu ñu xamoon bu dee gàmmu nag ci ñetteelu xarnu bi ci eh, gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ko door a tàmbali def ko feet muy feetu jullit yi ñu di ko def ngir dëkk ci gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi ak sant ci yàlla eh, ngir xewal gu mag gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon diine ji mu indi itam doon ko ñu di ci bég di ci ngir sante ko yàlla waaye itam nag di ci fàttaliku ay jaar-jaaram ak jikkoom ak coono bi nga xam ne daj na ko ci tasaare lislaam moog saxaaba yu tedd yi nga xam ne e, ñoom la àndaloon ngir loolu lépp mën a tooyal xol yi mën a dëgëral pas-pas yi mën a fàttaliwaat nit ñi siraatal mustaqim gën leen a xiic ñi sopp yonent bi sallallahu alayhi wa gën leen a ci ñi roy ay jikkoom gën leen a xiic ñu tënku ci sunnaam euh, kon loolu lañ ci jublu muy loo xam ne bu dee ci wàllu xew-xew rek mën nañu wax ne lu yees la woon mu ngi am ci ñetteelu xarnu bi ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono buur bu ñuy wax Abu Saïd ñu daan ko dàkkantale ci al Malik al Muzaffar mu nekkoon ci dëkk bu ñuy wax Irbil ci Iraq moo ko njëkk a sos kon mën nañu wax ne lu bees la ci diine ci ci niñ koy defee nii ci anam gi mooy dajaloo di def loolu amutoon la ko jiitu waaye bu ñu xool ci dëgg-dëgg jëf ji nag duñ duñ ko jàppee muy lu bees ndax màggal bi solo sunu jiblu te màggal yonent bi euh, lu yàlla digle la sant yàlla la ak bég ci xéewal bu yàlla wàcce te loolu tam luñ digle la liñ ciy def lépp ci jàng siira ak fàttaliku jikko yonent bi solo solo ak tagg kook julli ci moom loolu lépp luñ digle la kon xay na la cee niir lu bees mooy tànn gi ñu tànn guddi gi di ko ci daje ko ci def te loolu mu ne su ko tuddee euh, lu bees la waaye lu nit sañ la ndax jëf ju baax la te jëf ju baax la joo xam ne terewuñ ko terewuñ ko ko def ci jenn benn jamono kon bu ñu tànnee guddi ko di ko ci def loolu lu mën a nekk la kon mën nañu wax ne ab atteem daal mooy lu dagan la loo xam ne ku mu soob mën nga koo def te nit ngi yiw yu bare ngi ci sëriñ bu mag bi nag Cheikhul Xadim radiyallahu anhu mi nga xam ne Euh, moom dafa yeesal diine dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam delloo tegaat nañu ci yoon bi mu ñëwee ci ci réew mi jóge ci askan woo bokk ci askan woo xam ne dañoo dañoo yàgg a taxawal diine yàgg koo liggéeyal fekkoon ñu daa gàmmu mu daa ko ànd ak ñoom bi yàlla dogalee nag mu nekk euh, ku yàlla jiital ci kanam mbooloo mi mu jiite mbooloo sos aw euh, aw yoon ci diine maanaam tariqa boo xam ne day yeesalaat da ca jàngalewaat rek ano lislaam ak sunna dara du ca lu lu lu fent bi mu dikkee gàmmu dafa bokk ci yi mu gën a dundalaat gën koo feddliwaat ngir lim ci gis ci ay njariñ ak yiw ak ak ngëneel moo tax mu fonkoon ko lool lool daa ko def nga xam ne ba mu tàmbalee jiite mbooloo mi rek la ko tàmbalee dundal dund ko xam moo koy woote di ko ànd ak nit ñi wax nañ ñu ko njëkk a def ci atum junni ak ñett téeméer ak benn mille trois cent un muy ama asachine ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam war a dëppoo mille huit cent quatre-vingt-trois boobee la ko tàmbalee def bàyyiwu ko dirub li mu nekk ñu ko gis ci jamono fu ma mës a nekk te nekk fa mbooloo dana ànd ak ñoom di ko def waaye fu mu wéetee itam nekk foo xam ne mbooloo mi ci moom itam du teem koy def ci jëmmi boppam daan màggal weeru yépp ci di feeñal mbégteem ak di teral nit ñi ak leen dimbale ak di taarif ay xasida yoo xam ne ci tagg yonent bi sallallahu alayhi di ci bég ci ak ñëwam jamono waaye itam nag euh, di ànd ak borom leen soññ ñu koy dundal di ko dundal ci daje ci barab boo xam ne dañuy tënku ci lislaam góor ña ak jigéen ña teqali ko lenn luy caaxaan ak ak folklore sori fa ñu fanaanee jàng ay xasaayit yu ñuy tagge yonent bi sallallahu alayhi ak di jàng siiraam dañ ko daan defee mu ñetti kuréel la daan sàkk kuréel buy jàng jës bu ak bu jàng bu Naafi ak bu jàng am Amdah kuréelu jës bu mooy njëkkee jàng fukki bayt ak ñaar buñ daaneelee kuréelu Mawaahibu Naafi jël jàng fukki bayt ak ñaar bu noppee kuréelu Muqaddamatul Amdah jël jàng fukki bayt ñaar ñu taxaw ki jàng siira Barzanji yu jàng ab bunt kuréel bu njëkk ba jëlaat ñu fanaane noonu ba fajar jot muy joxe ay xeeti teraanga ak mbégte ci lépp lu ñuy naan jëfandikoo ba asamaan set noonu la ko daal dundale muy loo xam ne mooy tanzimo bi sunnati yaquuduna al jannati bi hisdar minat li mu semence bi ci tënk daal waaw wax na ci nag ay ngeeneel yu bari ak i barke yoo xam nekk na ci dundal ko soññee ci itam wax ne ku koy def te di ko teg ci yoon say xéewal day yokk te boo faatu da ngay tàbbi aljanna yaakaar naa nit ki gën bëggul lu bari lu ëpp loolu bëgg a mucc ci ci sawara tabi ajante mën a am xewal yu yokk loolu bokk na ci njëriñu gàmmu kon mën nañoo gàttal foofu rek ba beneen yoon incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa jërëjëf sëriñ bi ci kàddu yi am na solo lool bëri njëriñ làmboo njëriñ yu bare bare mel ni que leeral nañu guddik yonte bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko waxee cosaanam rek mooy. guddi la goo xam ne guddi sant la ak feeñal mbégte ci gan ak jamono ki nga xam ne mooy ngën ji mbindéef di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di feet la tamit ci feet yi nga xam ne feeti lislaam yi la ginnaaw woo xam ne amoon na ñaari feet yoo xam moo nekkoon cosaan yi muy feetu korite ak tabaski niñ ko xamee leeral ñu tamit ne mi ngi ñu ngi ko tàmbalee amal ci xarnu saalis ci troisième siècle ginnaaw feeñu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa ci ginnaaw gàddaay gi ci lañ ko tàmbalee atte bi mu amatee mooy atte lu dagan la ko képp koo xam ne bëgg nga koo def mën nga koo def nekkul loo xam ne lu ñuy eh, nekkul lu war waaye comme neex mën nga koo def mooy lu dagan la war na war nañ tamit nañu Sëriñ Tuubaa ku ko teel a tàmbali ndax dafa feeñ ci njaboot goo xam ne yàgg nañu eh, dundal lislaam mu teel ko tàmbali lool ci buñ ko tënk ñu ngi ko tàmbali ci mille trois cent lu toll cent la tàmbali woon di dundal guddi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ko dundal ci jàng alxuraan ak jàng ay xasida ak ay berna yoo xam ne moo koy defal boppam war nañu tamit ne guddi euh, ju màggal guddi juddu yéen bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekk guddi euh, lu màgga màgg loo xam ne ngeen lu bare bare am na ci comme ni ko sëriñ bi waxee ci Jazbul Qulub ak yeneen barab yu bare bare kon daal ma guddi guddi gaa guddi goo guddee ngi ne guddi goo xam ne guddi gu màgg la goo xam ne làmb na ngeen bare bare képp koo xam ne bëgg ngaa jariñu mën nga def ci loo loo mën ak loo mënul ba bu ëllëgee njëriñ ñi nga xam ne moom la làmboo yëpp nga mën koo màng kon du ñu guddalaat dañuy sant sëriñ bi ci kàddu yi di ñaan rek suñu borom gën koo sàmm gën a gën a guddal guddal fan wi te ak yokk wér gu baax a baax di wax wax kon asalaamaaleykum wa rahmatullah wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al wafi